jàpp naa ni amul problème pour war a gisanteeg sëñ Mountakha kenn laa dégg koo xam ni mu ngi def amal gaam di wax wax ju ñaaw nga xam ni moom lépp lu tàkk ci réew mi bakkan bu fi rot ci réew mi jàpp naa ni ëllëg yowmal xiyaam moom mooy responsable. kan mooy ku ñuy wax Moustapha Diakhaté. Hmm. parce que dégg naa muy wax naan ñi demoon Touba ay wéyu lañ. man de bu ma dee wuyu tamit man duma woyu buy tux bon man duma ma tux bon. non déglu rek ma wax man maay wax li may wax assumé naa man du ma tux bon du ma naan sàngara du ma tëddee jabaru jàmbur. non non non non non Imaam. waaw ah, da ngay déglu. Euh, kii Moustapha. non euh, déglu euh, waxuma ni moo koy def de. dama moom dañu wuyu ma ni moom mais bu ñu dugg ci bu ñu bu ñu wàcc foofu. non déglu rek yow déjà kilifa diine nga. bul wàcc foofu même bu ma dee kilifa diine. non non bul wàcc d' accord d' accord waxuma ni da koy da ngay bu yow waroo sax wax yooyu warul sax génn ci yow. ça dépend rek. voilà kilifa nga te kilifa diine xolam dafa war a yaatu. waaw ah, déglu rek. waaw ba may mun danga maa invité. Mhm. danga may bàyyi ma wax li may wax waaw mais dama la ñaan tamit wàcc ci gàmm boobu non déglu ma wàcc ma ci gàmm gàmm bi ma taxaw bu yonent bi ñëwoon ci lay taxaw mooy dëgg dama la wax ni la man duma ma du ma tox boon du ma wëyu man jullit laa yaa dégg boo sëñ Mountakha du recevoir wëyu du recevoir kuy fen dafa am loo xam ne dafa war a jeex ci réew mi réew mi mënoo fee nekk am benn discours haine di charger nit di ko charger ba trente personnes tey faatu ci réew mi nga continuer di ko def dama wax ni ku mel ne Moussa Diakhaté dafa war a am courage mu am ngor te mu respecter nit ñi dama ragal ne nag moom depuis mu ŋàññi yonent bi ba tey àndatul ak xelam parce que toog na fii ñun ki ñu gën a bëgg ñun ñun Sénégal ki ñu gën a gëm nga xam ni ñu ko gëmul sax normal warmaal nañ ko muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu taxaw ŋàññi ko loolu am tolérance moo tax ñu bàyyi ko moom muy dund. donc yow da ngay bu fekkee ne am na kenn koo xam ni nii jàpp naa ne waroon nañ koo rey xam nga moom nee na Ousmane Sonko terroriste la Ousmane Sonko dañ ko war a rey ma gëm ni bu fekkee ni réew mi am na kenn ku fi nekk terroriste kenn rek la ci réew mi ñaar mooy Moussa Diakhaté parce que moom moo porté woon dossier wu Ousmane Sonko takk rajo yi loo nit ñi ni Ousmane Sonko dafa war a dee ci kaso bi. waaye wolof nee na borom gémmiñ guy nàcc du wax jàmm gis nga kaso moom mu yéene Ousmane ko moom bu amul sens moo ci dugg man nag sama làmmiñ demul sama poos te moom xam na ni ëpp ma man boo waxee benn dinaa wax ñaar parce que bu dee mbokk ëpp ma ko ci réew mi bu dee responsabilité maa ko ko ëpp. ci donc leeral nga ne. ñii ñii jéem a naan dafa baax ma taxaw tuuti ci Moustapha Diakhaté. parce que ci taxaw parce que dafa def émission lëmm. Mhm. di def ay attaque personnelles yaa ngi dégg. heureusement nag li may sant yàlla Moussa Diakhaté amul benn responsabilité ci ci parti APR. parce que sax waaw non seulement du ministre du ambassadeur du porte-parole du gouvernement kon bu nee Pastef parti parti parti parti terroriste la li mu wax moom la engagé waaye réew bu fekkee ne am na kenn ku ñu fi tuddee terroriste man Moussa Diakhaté laa ko tuddee parce que moo fi ŋàññi yonent bi yonent bi Cheikh Amadou Bamba gëm moo taxaw fi ŋàññi ko. donc yow Seydi Hadji Malick réew mi tey bu dee ni mu murit gi muy woote dëgg la ku mel ni Serigne Mountakha yàlla na ko yàlla ko fi yàlla bàyyi woote jàmm nit ñi di wut solution nga taxaw défier Serigne Mountakha loolu bu dee ni murit gi ngay woote dëgg la ci yow doo ci nekk kon na arrêté parce que ñun ñi muy waxal lépp lu muy jaay rek ñoo ko ko ëpp waaye ñun réew mi dafa am lu mu ñu jaral ñun waxuñu pour suñ poche waxuñu pour lu neex Macky sàll waxuñu pour lu neex Ousmane Sonko dañuy wax parce que réew mi lañu bëgg a sauver loolu bref parenthèse la woon rek bu ma doon def di wax ni il faut mu respecter nit ñi il faut mu respecter nit ñi. parce que réew mi ñi fi nekk dañoo mérité.